Je Ndiaye euh, conseillère euh, de coordinatrice euh, coordonnatrice 550 Abdoulaye Sylla Je suis venu pour représenter la mairie le maire en question hors du pays ma représenter en tant que coordinatrice ABS 550 parce que comme sociale ci la donc euh, moo tax ma ñëw fii ci ci ci jataay bi. dañ koy dañ koy saluer bu baax a baax baax a te di ko ñaanal yàlla mu àgg li mu bëgg mu yàlla na ko yàlla may mu matale ko parce que nag kër mooy lépp nag ah. lu waay am te amuloo kër amuloo dara. donc euh, bu ñëwee ñëw day créer ay logements sociaux pour jox ko ñi nga xamante ne dañ koy yitteewoo vraiment kooku dañ koy dañ koy accueillir à bras ouverts. parce keroog bi ma demee Colobane gis naa. adhérer massivement donc face aussi non la nous faire pour euh, def le nécessaire maanaam fournir les papiers qu'il faut pour adhérer pour a mën logement yi. di coordonner C50 euh, préférences nationales, je Ablaye le président directeur général Ecotra donc mon euh, ma nekkal ko fii ci commune nous war a du yàgg ñu installer maison C50 parce que dans toutes les communes du Sénégal dañu couvrir territoire national bien. Hein. toutes les communes doivent avoir une maison bu nga une maison C50 la donc man sama boss, waa Gueule Tapée Fass Colobane ñu ngi pare fi actuellement ñu ngi ci xaar ñu ci démarche pour finir installer la maison les pare na en place c'est en ce moment bu bés yéen moom kenn du leen fa jiitu parce que yéen dafa mel ni partenaire commune bi ngeen te mënuñu def dara te ànduñu koog yéen. pour que woo femmes yi ci commune bi yëpp pour mun la def ay financement mais il s'est trouvé que moment bi ñuy wootee dafa yemoo juste ak euh, élection élection yi di jub si te ensemble léegi nag euh, période boobu doo mën a xam kii et kii def kii fait quoi aussi ñu ne woon na dañuy soir euh, projet Ablaye Sylla bi. ba nga xamante ne politique bi jeex na bu politique bi jeexee nag mu jóg ñu xam ne projet C50 ça n'a rien à voir avec la politique waaw moo tax nag ñu toog nag ba nga xam ne politique jeex na kenn amatul loo politique ñu ne nag dañu yëkkatiwaat projet bi mu ñu ñu suñu liggéey loolu daal moom laa mun a wax pour le moment en attendant ñu ñu ñu taxawal suñu maison C50 defe naa jour boobu moom kenn du leen fa jiitu.